Mariama Ndiaye du ma wax sax madame Mbacke Mariama Ndiaye ndax man li ma njëkk a dàq mooy madame Mbacke madame Mbacke monsieur Mbacke c'est honteux dafa doon loo xamante ne tey man ñi koy tiitaroo dañoo xamul lan lan mooy Mbacke soxna si lañ daan wax waaw bu ma gisee ku naan madame Mbacke di ko tiitaroo wala monsieur Mbacke costume di ko tiitaroo daf may metti ndax man dama bëgg a dee ci taalibe Mbacke borom Tuubaa lu ma metti la monsieur Mbacke madame Mbacke. xamuñu kan mooy Cheikh Ahmadou Bamba dañuy fooyee yoon wi du dëgg du yoon Mariama Ndiaye bi ma wooyee ne ma sa jigéen ñi dañuy liggéey liggéey bu am solo dama bëggoon nga jox ma soxna Fall ndax ministre bi da def ñoo sant nañ taxawal fii kuréel boo xam ne tey panel boo xam ne dañuy xeex wàllu li nga xam ne tey mooy commune 19 bi mu doon idée bu rafet mais idée bu ñu la jox rek. la wala di wax naan gumba heure bu ne la kaa ñu rek daa joggi ciw xeer waaye ku yàgg ci biir gumba yi rek mënoo koo dribble te loolu mooy lu ñu daal suñu diggante ak ñoom bi mu wooyee après ma jox ko soxna Fall mu dugal ko ci biir paneel bi soxna génn mu woo soxna soxna ne ko xanaa boo considéré woon nit boo koy dugal ci panel war nga koo woo expliqué ko mais expliqué wu ko après bi ñu waxtaanee ba d'accord mu dugal ko ba mu ko dugalee. waaw ba mu ko dugalee ba mu dugg ci biir gis na lii politique kesee ko lal politique bi ma nga tàmbalee ci Macky sàll ba wàcc ba ci suuf politique kesee ko lal pardon non pardon tuuti ça n'a rien à voir tey jii mënuñoo woteel Macky Sall 1000 milliards mu war ñoo jox ay masques war ñoo jox ceeb ak diw joxuñu ko war ñoo jox suukar joxuñu ko. weeru koor ba weeru koor bi jeex trois mois d'état d'urgence mu jël mbir mi wax naa ko ci benn vidéo dénk ko ak njabootam njaboot ga bu ñu ci amee lu leen neex du ci am lu ko neex. Mansour fay moom mu jox ceeb bi ak diw beeg suukar seeg yu kenn xamul tey ji c'est zéro ndax dara doxul kon tey jii bu Mariama Ndiaye moomee wooyee Soxna Fall Soxna Fall dugg ci biir paneel bi wan leen ne tey jii fi mu ton nii de idée bii ngeen jël rafet na waaye ñun de comme bopp ba léegi ceeb bi ñu doon xaar ak diw bi gisuñu ko te ñoo li ñuy dajale ñu jënde ko ceeb ak diw jàppale ko ñi nga xam ne mooy néew ju doole yi Touba am na ñoo xam ne bu ñu añee duñu reer état bi tëj na ñëpp ñi doon yelwaane mënatuñoo déplacé wu sax dem di wuti ndimbal kon dëkk bi yëf yi metti na wan leen na tey jii fi mu doon ni état bi dafa échec ci lii nga xamante ne tey mooy commune 19 bi ndax fi ñu waroon a jaar jaaruñu fa waroon na ñoo jox ceeb à l'heure joxuñu ko waroon na ñoo jox ay masque joxuñu ko tey jii nag ngeen bëgg a dajale ñun ñu joxe kenn ku ne ñaari junni di participer ñu waroon ñoo jox tegoon ñu suñuy kër mu ñaawlu loolu ñu quitté ko panel bi Mariama Ndiaye jóge fii dem ca commune ba wane na ñoom jigéeni Touba yëpp ànd nañ doon benn ñu woo ñëpp woowu ñu soxna Fall ak tey jii ku tudd Abdou Lahad Ka tudd ma am loo xam ne Abdou Lahad Ka daf ko yor war koo jox jigéen ñi maa yore jigéen ñoo xamee seen tey amaana bu leen reconnaître dëkk bi reconnaître leen Ibrahima reconnaître leen man na am pôle ba nga xam ne ñoom lañ bëgg muy voie bi nga xam ne moom lañ bëgg ma jaar fa du ma fa jaar ndax man duma ma def lu ma gëmul ñu yëngu ci wàllu social def nañ fi safar gu mag fii ci digg penc mi amul benn autorité bu fa jaar sëñ Moustapha Moussa ñu di ko sant lool mu may ñu kër ca Poroxaan ñu dem fa def ay bernde yu mag ak yeneen ak yeneen ak yeneen ak yeneen ak yeneen bu fekkee ne léegi daje nañ ci commune ba waxuñu ko soxna Fall ma wax ko ko bu fa ñëwee ñu bëgg sédd lépp xaalis ñu ne jigéen ñi Touba ànd nañ dafay taxaw wax ne jigéen ñi Touba ànduñu te naka jekk mosuñoo ànd ànd naxante rek lañ fi nekkee lii mooy problème bi Mariama Ndiaye nag représentant de l'état la ndax tey jii SEDAF Gueye bu fekkee ne dañ ko faa teg pour jigéen ñi nga xamante ne tey ñoo ngànk département bi transparence la ci war a dox mais doxu ci transparence sama kuréel bii keroog bi ma nga xam ne maa ngi koy taxawal maa ngi ko woo boobu ma nga Amérique fa la ma wuyoo mu ngi ànd ak ministre bi mu rafet lu idée bi lool keroog bi nga xamante ne tey si na may def assemblée générale bi lettre bi maa ko ba këram jox ko ko bi ma koy jox ministre baa ngi woote mennum ay Gueye moo jaar ci ci assemblée générale boobu kon bu fekkee ne wax na ne day woo Soxna faal pour ànd ak moom waxu dëgg jox nañ leen fi ay ceeb yoo xamante ne tey ministre bi moo ko moo ko jox wax na ko ci télévision wax ko ci média wax ko ci lépp nee na ministre bi moo ko wax ne na ko jox ay xaritam en tant que représentant de l'état nag yooyu dafa doon loo xamante ne tey barki démb la Aly Ngouille Ndiaye mii génn fii daane lim doon def lépp defu ko ci ndigalu Macky Sall ci ndigalu boppam la ko doon defee ab état nag bu ñu demee ba yooyu def nii ndax toj penc bu rëy lañ dégg fii ñu ne Touba ku takkut masque da ngay fay vingt mille francs waaw te ñu ngi dem di ko weddi mais Touba la ñu war a la war a xam ne Touba tey jii bu du woon Touba Sénégal du développé nous disons la vérité suñu papa Djibril Fall ma nga ca dëgg suñu papa Djibril Fall ma nga ca dëgg fii la taxaw wax ne mouridisme bu amutoon dañ ko war a créer ndax moo yore économie gu réew mi kon nit nag li nga xamante ne mooy sa patrimoine waruñu ko fooyee ku jóg ñu ne Touba ku jóg ñu ne Touba ku jóg ñu ne Touba attaques yi dafa bari Touba même yow mii sa jëm bopp sax boo dëkkee Touba tey ji jóge fi dem dakaar ni commune nii tey jii li nga xam ne seen tey mooy feebar bi ni mu baree Dakar boo ne Touba laa jógee dañ lay daw la preuve mooy tey ji mënuñu nekk ci dakaar am 2000 nangam cas Touba toll ci ay cas yu néew ñu tëj Diourbel tëj Thiès te tëjuñu Dakar ba tey jii di jaajëfal xale yi nga xam ne seen dañoo wàcc tax Macky Sall li nga xamante ne tey mooy euh, daan gi mu ñu doon daan ak nit ñu tëjee woon ci kër yi yóbbu ñu foo xamante ne yàlla yóbbu ñu fa xale yi génn ñu fa. loolu nag ñun dañ ci remercier xale yi nga xamante ne tey ñu ngi ko doon def xale yi am jom lañ. président dafa war a xam ne xale yooyu xale yi am jom lañ ñi yaa fuus kay mooy ñi nga xam dañoo ànd ak moom te duñ ko wax dëgg. dafa am loo xamante ne tey jii fi ton toll boo nekkoon ci biir bâtiment bii ñu naan la tëli bi benn problème amu fi ba nga dégg ñaari camions yu mbëkkante génn jot na. te mooy li nga xamante ne tey dal na ki nga xamante ne tey mooy président Macky Sall léegi nag moom daf cee war a def njàngat mag ndax tey jii li génnee li génnee li génne xalif général des murit guddi mu jël rajo jumaa ji def communication gone yi doon wàcc ci tëli bi ñëpp àndaat ñibbi seen i kër suba sa ñu balewaat tëli bi ba mu set wicc xale yooyu dara ñoru leen loolu sëñ Tuubaa ndax sëriñ bee ko wax bi muy dem ci géej gi góor ga nga xam ne dañ ko toggaloon laax mu mer laax boobee ker añewu ko ba mu ñibbisee mu bëgg a jébbal sëñ daf koo wax ne képp koo xamee seen yow maa ngi nangu woon sa njébbal ca laax ba képp koo xamee seen tey lu jiitu ngay gane àdduna sa wayjur jébbal woon na nangul nañ la sa njébbal nañu yërëm ñi nga xamee seen tey mooy néew ju doole yi jàppale gone yi nga xamee seen tey ëllëg war nañoo mën a doon dara ci dëkk bi loola nag sëñ Muntaxa Mbàkke yàlla na fi yàgg te xam na fi àdduna jëm ndax université bii nga xam ne daf koo tàmbali te yàlla na ko àggale def ci ay milliards ay gone war caa génn ëllëg gone yooyu bu ñu ci génnee ëllëg kenn mu leen a réeral du gone yu taxaw fii ci Touba di wut ay comité du gone yu taxaw fii Touba ëllëg maanaam di ndax nit ñi ŋàbbu turu dëkk bi wala santu dëkk bi dugg ci nit ñi maanaam di ko wuti ay militant sëñ bi maanaam mustu wut ay militant sëñ bi ay taalibe la am ñu bàyyi li ñuy wax la sëñ Cheikh Fall Mbawar di wax rek képp ku fe ne jàpp convocation ngay diwoo saafara luñ la jiñ yow la te problème bi y a beaucoup na ñu nañu bàyyi li nga xamante ne tey muy dëkk bi nga xamante ne ñu ngi koy fooyee ñun nag ci développement la ñuy yëngu ci social la ñuy yëngu bis bu ñu demee ba àgg ci li nga xam ne seen tey mooy politique bi dinañ xam ne Ibrahima ma ñu xamoon démb ak Ibrahima mi bokkul